Seydina Limaamu Laye Seydina Issa dafa ñëw ci man wàllu si man Seydina ma ñëw mu yor yàlla Moussa mooy Omar bu ñëw ci man waaye kii sama doom. xam nga dégg ngeen ñu ne naar yi bàyyi ko di ñëw fii ñun dendeer am nañu ko taal ñu ko jaar borom gànna jaay góor gi ñuy wax. misaal sant Diop yor si ëmb xiif wax nga moom déggul arab mu oo jàmbaatu nag ñii dañuy wax naaj nag nii mu ne ko dañoo lekk pour di bay bare ba dëngee boo fekkee ne mag mu laaj kër mu ànd ak naaw ba mu jógee ba kër jëm sow am ko ñu xalaat policier te te te lii xaj naa nga gën a jege mu nekk nu mu tudd mu nekk di maam sallallahu alayhi wa sallam lekk ba pare jël juróom fi mu gën a bëgg jox cey ngeen kooku ngeen jëm lu mu oto def sallallahu loolu bu sant sant waaye yàlla kay na ko def bés ar ar bu jot am nuyu ko daje dëkk si yàlla te dee na mu am juróom fukki ak juróom-ñaar fukki ak benn ci yàlla nag kii day dugal naa gën a woon rek bàyyi lay ne mu ngi koy tënk sax. sallallahu alayhi wa sallam. nee na mu jaar foofu ñëw fekk bàyyi lay ne njëkk na sallallahu alayhi wa sallam. am na ñu ñëw boo demee ca tamit man xaar fi nii c'est pas 47. ne ne imaamul mahdi buy ñëw ña koy seet ci borom bi xam kenn ku ne ñuy bàyyi waaye duñu ko buy ñëwee dañuy jom ni wala ñu mën a jom waaye waaye ñu jóge foofu ñëw te sëy naa yéen tegtal la ñu buntu këram ak man jàkkaam dañuy jàkkaarloo su kër sobeem dafa nekk ci këram waaye jëpp nag waaye nag lu boobu am nga càmmoñ sallallahu foo ko fekk day jiit jàkkaarloo kan. ndeysaan. ba mu ñëwee fekk mbooloo bi toog bàyyi leen ban ñi ñëw bu ñu xëy na jafe man du man jaafewul boobu. ndeysaan bi moom xëy na ñëw toog. fa lañ jël lettre lañ joxe. ndeysaan. parce que bàyyi ñaari at la. la ilaha illallah. juróom-ñeenti at. fóore bu mu jox nga ne man maa jàng naa amul. Aliou Baba. ani Babacar dina béy jiw mu daw ñëw bàyyi la xew mu ne ko am lettre yi jàngale na topp ma naan naan bàyyi jàmm mu ne ko Babacar waxal lettre yi nga topp ma naar yi foofu loo xam teg ci kaw mu jàngale ko xarat yi bu bu wér wér wér teg ko ba naar yi jaaxle mu ne benn ngoog mu ok loxo ba ñu gis jib jë jë jë dina gën tànn tànn tànn. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. mu ah, bu xool. bu ne xaaral ma sën sën ñaari xool am na lu yóbbu sa góor li ma mu indi mbagam ca ba nit boobu yóbbu. na téye maam ba te doom wala laaj ana jàng ëllëg loo koy wax. mu ne teg teg rek sama gaañ dama am. ku jàng sa bàyyi kan la bu la teg nag yàlla. waxu bàyyi kan la yu bàyyi lay jàngaloo woon. Hmm. sëñ may jow keroog la ko ca baayam mi ngi moom billaahi wallaahi keroog ba ñu demee ger am ci ñoom ku dëgg miin wa ba miin ba ci loole tànk ba daa tàkk li ko yaram waaye seen baay Babacar ay tiim ko du ko delloo sa mbaay li maamu ca yoon mooy Muhammad Rasulullaah mu del la sow ca waaj na billaay wallaay taalaay maam ma yeelaay sa baay li maamu ca yoon mooy rasul makku mo doy lay borom may bari borom leer ya borom sañ sañ na ko borom waji ah ya ta ya sayyidina maulana ki moy sama do sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don na tele legi waji to magam dafa wëlëre taalibe Xaadimu Rasuul tudda yaay Kadir kooku tuddaaru Njaay mu jógee ban bi ñëw rey bi ci tetew leen boo ma mbay bi alxames ñu jàpp ko andi ko police tege war ka engrais ko yóbbu ko cent mètres ñaata daw ñëw fekk ko taay mbay ma mbay ndeysaan mu ne ko la xew sama wóllëre taalibe Sëriñ Tuubaa dafa rey nit ci otaam te xalaat naa gaañ ko teg nee na ba mu ko fekk mu sëweeru ndeysaan yor benn kaal mu ne ñëw kat jël benn fuy dal di bind naka boo demee boo ko fa fekkee na def ci poosam boo ko fekkul dàq Dá cá. mu ñëw dugg ci biir jox ko fooy bi mu def ci poosam def ko wut yi ñëw. commissaire. bay bay la ilaha illa Allah ko dara mu ñu daaw jaay. mu am fukki fan ak juróom. rey. surtout yaa fekk sekk ci teewlee. kii fa la def. waaw même fukki fan ak juróom. way defar lal ñu ne ko tey comité entendre a ba pare takk saa ñu war a jóg pour dem Sane. ndeysaan. yaa ngi ñëw fii fekk bay may fii bu ko loo xew mu ne kama defoon tey su rayat nit mu naan bi nit jaay mu ne gën a jox ko fital yàgg dana maa ngi topp ñu ne mu bind ndax boo la yëg moom boo ko fekkee jox ba la joxoon bu fekkee mu dem nag fa muy fa muy tëdd sa talam def ko fa yaa ngi daan dama ñëw nii fekk oto bi dégg dem Dakar ma jubal dem timis laa egg dee dindi bopp gee naay def ko bu muy jub 100 mètres dañu téléphone ne delluwaat dégg nañu sa lay jur doom jur góor nag tuddee ko maam Mbaye ma ngi kii waaye kooku moo leen di ñaanal saa ñun ñoo leen moom te lii am na ci li nga xam ne maam bay bay bay bay bay cay dama way danoo quatre-vingt-huit dama tàbbi jàmmalaay retaloon góor bu baax ba ceene xel yi ceene xel yi Seydina Issa moo ñëw dëkk ba dëkk lu bëri. wallaahi tax mu jóg ba dem dem lay ma. wallaahi. lama dinaw tuddu na wal. xaale lii xaale ah. lii. lama dinaw tuddu na wal. waaw. xaale lii. atiiful. góor gi ne. kenn yaa ngi taxawal li yow. kenn gaal nga woon fii waay wala mu nekk fa nga dale ak fa nga yem ma xam waaye moom dugg sa biir dama réer nga ma def dana mën a ñokkeel jëm jàmbale ba ma nee jëm na waxañ waxañ waxañ am na ma ne hey dama danaw dama danaw tudduuna xaalali ati fur ما يوحنا إيه؟ ما إيه هذا اللي أبيف لي وحيو أبيف ما ودك يا دخلت أبني ترمي يا لي تبي نفسه خمنتري خير الوعد فينا Tuuba li man saa. la ilaha illallah. texe ak kawe ñeel na. هذا البيت العالمنا ku ñëw ci béréb bii xam na sa maam mooy xew werante wul xalaatul leneen ndax gëm na fa kay ni rasulu ila ila sa sabbi ila riba ila bodo ilaha illallah. mooy dafa am bi may def émission daaw tane yi ñëw moom mii moo bàyyi ma géer ñëw ak mbaax koo xam ne boo Moussa yóbbu nit sax moo la ngir bañ nga mu ñëw ma dugg ci buntu gàncax ilaha illallah keroog andi naa juróom-ñetti téere téere bi rek mu génne ak pass bu mu nekk imam Moudou Mokhtar yaa ngi leen di moo ma ñëw du ma kontaan juróom-ñeenti téere yoo xamante ne génn mu Buxaari yi gis nga ñaari caala ya bàyyi bàyyi. sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi. sang bi kii daal nga bàyyi kaale yi kaale yi. hadis andi na ko ah dama ci Nour Oustar bi manaaqibi Muxtaar c'est pas 62 ne ni imaamul Mahdi dina ñëw ñaari melo démb ak tey nekk ca kaw moo tax bàyyi lay bu nga nekk ak ñun wuloo bekkaalam ñu nan adduna dopp moom la yàlla dénk adduna allah diidun nana nana hadis bi nag génn la abonné ak dabaraani wa yaxrijul mahdi wa ala rasi amaamatu biidun wa aswad fiha malakun ينادي هذا خليفة الله المعدي فاعتبه أخرجه أبو نعيم وطبراني وخيره بيد وسود وفوق البيد وفوق البيد أسود فخارج boole ma limaam bu bëgg sa waay damaa gisul ku mel ni maam ni maam wax ne yàlla moo ma yoon ne moo ko wax nu mais inni rasulillahi ilayhi sallallahu alayhi wa sallam li baax dina tontu pour leeral nit ñi damaa gisul ku mel ni maam li ma malaay te dégguma ku wax na yàlla moom ba yoon na moo ولكن يجب ان يكون هناك جدار ويقول لك ان يكون هناك جدار ويقول لك ان يكون هناك جدار ويقول لك ان يكون هناك جدار ويقول لك ان يكون هناك جدار ويقول لك ان يكون هناك جدار ويقول لك ان يكون هناك جدار ويقول لك ان يكون هناك جدار ويقول لك ان يكون هناك جدار ويقول لك ان يكون هناك جدار ويقول لك ان يكون هناك جدار ويقول لك ان يكون هناك جدار ويقول لك ان يكون هناك جدار ان يكون هناك ان يكون هناك جدار ak xutbu yi ak labdaat yi aarifina billaay borom xam-xam yi buy doon tëjoon seen xam-xam yor seen xalima di bind seen xam-xam dana jeex. wallaahi bu doon géej boobu nga wax dana nekk bu doon fekk suuf la dina jeex te doo xam ne imam xaaral ko ne Isa Agesta. Isa Agesta. boolotee. bi tax di di masaaya waxul ci bëgg خلني يسينا لماما فقل وخر فلا يرى المسلم ولا يرى المسلم في الجنة mooy bu doggee dara du si du yokk du wàññi li ma ma nga xamante ne. sallallahu alayhi wa sallam. xattaan nekkoon na yàlla dogal na ci moom. al muntasar ñu nekk daal. laysa waliyu. du nekk waliyu bi jërëjëf. wala xutbun. du nekk xutbu. li fi kalami. bu teg lay doon téye noonu lay doon. laysa lahu xutbu. waaye yaa di xutbu. la xawsun. بقوس ولا ولي بولي إلى نبي ينتلى لمي بجنب رحمة لمامي دقل خمتكم صلى الله عليه وسلم محمد أن رسول الكسب عندي في يوم الكسب الأكبر بس 240 نانا جابر لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يا جابر من أنكر خروج إمام المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد ومن أنكر نزول عيسى ابن مريم فقد كفر إمام المهدي بن يقوت من محمد من تكرم تخوم غير الموت كن نقدر